bëgg xaw ma dégg nga wax jëm déet. est-ce que Serigne Touba xanaa nga weddi ko fekk xamoo ko. Hmm. waaye boo ko lunjutoo boo ko lunjutoo ba xool mbindam force da bëgg Serigne hmm. la ko wax. xanaa nga xam ne ku boog yow kon yàlla dalaa nattu boo dee ku baax te jàng jàng dëgg dëgg dëgg dëgg mbindam. noo hmm. def def da nga ko sopp. moo tax booy booy bañ Serigne Touba bu ko jàng de boo ko jàngee rek bëgg ko. est-ce que. booy jàng mbindam. bu dee bu dee am nga tuuti ci sunna yonent bi am tuuti ci gëm yàlla noo def da nga am danga am shawq ci Cheikhul loolu loolu yàllaa koo ko defal mais loolu loolu jër te weddi te it gis gis nga euh, Nicolas Serigne Touba da doon jàmbaar joo xam ne du jàmbaari diine kese da doon jàmbaari diine ba noppi nekk jàmbaaru pénc mi hmm. waaw ndax kenn ku nekk ci ñu ko waroon ci keppaaru sëriñ Touba kenn ku nekk la nga mënul defal na la ko te soxlaalu la dara hmm. foofu la ngor yam yow li nga mënul ñu dimbali lu ko fekk ko xam ne kii daa sant Juuf du woon dara ah ñoom jànq sa mbokk moom sant Diouf ah. Tandian Diouf moom waaw sama waa jooju. ak seen maam yooyu nga xam ne duñu woon duñu woon naada. Sëriñ <laughs> Tuubaa woo leen ba ñëw mu defar leen ba noppi na mais atta mais loolu kuy defar nit ñi ba noppi yow berse daaree bopp hmm. sëriñ bi dem na ba jamono mën te jàpp sax génn ci biti ndax nit ñi dañ koy song mais danaan dandu fu mu dem nit ñi fekk ko fa mu fekk koo xam ne kii du dara mu fexe ba ñëpp fonk ko xëcc la teg la ci wetam defar la jox la jom jox la yitte jox la liggéey jox la jaamu yàlla ba noppi war ci aw fasam dem yoonam amee sëñ bi loolu ba noppi nag gën la ragal yàlla wattu jàng am xam-xam fab yonent bi ne moom mooy wax de seexul xadim dem ba ne man daanaka bëgg gi ma bëgg laay la wax de ah, nee na doom sax xaju fa ci sama xol waa sëñ bi lii nag lii nag ku ko wax ah ba noppi bokk ci réew mi du sëñ Tuubaa du Burkina Faso du Burkina be du Cameroun ab Sénégalais hmm. waa ji kooku ko war a bëgg te lu mu taxaw it ñu taxaw ca parce que fierté la ci sénégal sëriñ touba manam mbikté la képar la ci réew mi mais loolu loolu dëgg mais loolu am loolu am wallahi